et c'est tout à fait normal. alors nga ne 2012 2013 en neuf mois euh, da nga comprendre que c'était pas que que mënoo woon cheminer. Mhm. Euh, avec le avec avec avec le le, le régime Benno Bokk Yaakaar. Mhm. Euh, lan moo nekkoon les points d'alerte. point d'alerte bi c'était au niveau de la décentralisation dañu ñëw gis aménagement du territoire ni mu centralé gis la nécessité réorganiser le Sénégal en pôle territoire. ñu travailler sur ban stratégie la ñu war a def pour teg benn financement sur la décentralisation ak des objectifs de de, de volume financier yu ñu war a def yooyu yëpp ñu teg ko en plus diagnostic bu nga xam ne pour être honnête diagnostic bi c'était sous Wade que les gens l'avaient fait je pense que diagnostic bi ça date de 2008 ou 2009 je de mémoire je me rappelle bi ñu ñëwee ñu fekk fa benn lettre de politique sectorielle validé ko mais ñu dawal un mois deux mois trois mois parce que on rentrait sur les élections législatives les élections municipales mais on a tout chamboulé mën naa ne le moo tax quand on dit que ne euh, Aram Ndoye def bëggoon liggéey ak man ba bañ c'est le contraire c'est-à-dire que bañ ñëwee ñun liggéey bi ñu defoon jël la décentralisation mettre ko sous sa responsabilité ñoom dañ ñëw delluwaat en en en en système par ligne budgétaire donc pour dire que et puis l'analyse sax c'est au niveau du président Macky Sall c'est-à-dire que c'est quelqu'un il est trop dans la politique et pas sur des décisions yu nga xam ne da ngay xam ne lii la la planification wax lii la la aménagement total wax lii la la décentralisation jàngal ñu appliquer ko parce que man dama gëm xam-xam soo ma laajoon quels sont mais cinq principes en politique principe bi njëkk mooy lépp looy def da koy teg ci xam-xam dama gëm planification